asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi ñuy seetaan te di ñu déglu bokki taalibe yi noo ngi fii ci bis bu am solo bi nga xam ne tey ci lañuy ñuy fàttaliku jàmbaar ju tedd ja muy sëriñ Baara Xuraja Mbàkke moom sëriñ Maam Moor Mbàkke moom Soxna Jaara nekk nag ci kër sëriñ Cheikh Tedd Mbàkke bi nga xam ne moo toog tey jataayu sëriñ Baara Xuraja ñaan suñu boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te yeggale yéeneem yeggale naal yi nga xam ne naal na ko ci tool bi nga xam ne ki lay bayal jàmbar ju tedd ja di sëriñ Mamor Jaara Mbakke waaye nag di ci bayal eh, waaye juróom bu baax wa sëriñ Baara Xuraja Mbakke bis bi nag ñu di ko fàttaliku at mu jot ngir fàttaliku ak dundam fàttaliku ab liggéeyam dana tax ndaw ñi man cee jànge waaye mag ñi man cee fàttalikoo moo tax tey jii nag ci bis bu tedd bi ñu ànd ak xidma TV ànd ak xidma 28 àndante ak rajo Benno FM Touba ak Lamp Fall FM ngir taatan ak alxadimiya ngir taatan nag kàddu yu am solo yoo xam ne dana bàyyi ko ci Serigne Cheikh Mbacke kiimaan mi toog di sëtu Serigne Bara Khourédia ñu fas yéene ànd ak moom ci fàttaliku bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisu Serigne Bara Khourédia sëriñ bi xam naa ginnaaw sa nuyoo laaj bu njëkk bi rek nga fàttali ñu bis bi ak lan mooy cëslaayul bis bu tedd bi nga xam tey ci la bokki taalibe yi daje ak fàttali nag lenn ci dunduk jàmbaar ji nga xam ne tey moo tax ñu daje fi muy sëriñ Baara Khourédia Mbacké moom sëriñ Mamor jaara Mbacké kon sëriñ Cheikh Mbacké Kimaan ñu bàyyi la ak kàddu gi rek nga del si ci laaj yu am solo yooyu ginnaaw sa nuyoo rek mën ngaa wéyal waxtaan bi auzu billah bismillah inna waliyallah wasalaatu wasalaamu ala rasulullah ginnaaw bi nu sant yàlla julli si Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dolli sant Seexul Xadim ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara te di leen ndokkeel bu baax te am mbégte bu baax a baax si jataay bu tedd bi ngeen xam ni fi lañ nekk tey di fàttaliku jàmbaar ju tedd jooju Cheikh Amadou Lamine Bara Khomeja euh, bokk ci jàmbaar yi nga xam ni si jàmbaar yi Sëriñ Tuubaa la euh, ndax pour ñu man laa wax kan mooy Cheikh Amadou Lamine Bara Khourédia doy na sëkk rek ñun la doomi sëñ Maam Moor Jaara la sëñ Maam Moor Jaara di mag si Cheikhul Khadim ñu bokk soxna Jaaratullaahi bokk sëñ Maam Anta Sali doy na sëkk tamit ñun la li mat a def lépp sëñ Tuubaa def si moom ndax 1895 bi mu sëriñ bu soobee làq ko sëriñ bi jógee Mbàkke Bari Jolof ñëw fii si Mbàkke di ko jaale si magam jooju sëñ Moor Jaara ci la fekk sëriñ euh, Baara Xuraji wàcc euh, feeñ jamono ndax nañ bàyyi xel ni sëñ Mor Diarra mook sëñ Mbusoobe ñoo sëñ Mor Diarra moo nekkoon sëñ Mbusoobe ndax boobu seen mooy seen nijaay te boobu mag la woon sëñ Mor Anta Sali féetale ko moom mu nekk ak moom. ba tax na histoire yu bëri sax booy diglu si sëriñ bi moo lool moo waraloon sëñ Mor Diarra féete gi mu féete woon Mbàkke nekk sëñ Mbusoobe bi mu nelawee tamit 1895 googu. Euh, mu euh, sëñ mat bi ñëw di ko jaale si sëñ Mor Diarra ngir nekk gi mu nekkoon moom si la ni ko soxna Xuwe ji am na gan wax nañ ni sëriñ bi moo fa teewal boppam euh, tuddal ko boppam tudd gi tamit histoire yu bëri xew na si ndax ñeeng ni sëriñ bi dafa tari si moom bàqam ak Ali Imran daal di wax sëñ Mor ni ko jëmm jii de def naa si moom lool bu demee ba mat dama man ne ko jottali ma sa télégram bañ dafa dugg si fekk loolu moo tax Cheikh Amadou Lamine Bara Khoudia daan ni sëñ Touba da xëyut kenn gontooma te jàpp naa gontum sëñ Touba rek doy na sëkk waaye moom kebe bi ku sëriñ bi defaree mooy bi mu ko tuddee rek la ni def naa si moom loolu bu demee mat daba mën ko jottali ma sa légeem bañ daba ko si fekk loolu tamit si histoire am da ngay xam ni defar ko tubaa Touba googee ba léegi saa boo xoolee da nga koy gis si mag ñi nga xam ne tamit ñoo xam sëñ Touba li muy doon doon waajuram li muy doon doon waajuram yemale ko woon ak dara Euh, lii fi mu ne ji moo kër gi ñu nekk sëñ Cheikh Tedd Mbacke mi di xalifaam moom la ko tuddee sëñ Cheikh Baba Xaba ji mi di taam moom la ko tuddee sëñ Xaadim Mbacke mi sunu waajur moom la ko tuddee sëñ Xaadim Mbacke mi euh, sëñ Xaadim Mbacke moom itam moom la ko tuddee nga xam ne kon foofu ak bëgg foofu lay am muy ak njabootam ñëpp delloo waan ak sëñ Touba waaye tamit doonoon koo xam ni la ko mooy xoolut lim sëriñ bi doon si moom waaye li sëriñ bi yor te li koy maye muy pas-pas ak jaante loolu sëriñ bi moom moo ko defal ba moo ko seedeel boppam keroog bi bi mu ko joxe tuur rek la la loolu lépp mat moo tax fii daal na fi nekk fekk sëñ Tuubaa si sa ngaabu ni ko tax yi dama lay laaj laaj yoo xam ni ni ko mbooloo mi sama kër bu nu wootee ñu woyu soo sant bu ñu toogee si kaw mu toog ma toog bu ma toogee si kaw ñu toog suuf te ëllëg yomal xayam xamul nu ma leen faye mu ne ko sa baay di nee na moon boomu yitti nga waaye lii fi mu ne na ko waaye Mouhamadou Lamine yéen ay wullikat ngeen te loolu alxuraan moo ko wax ndax ñu bari ñi ci li xew léegi nga boo dugg ci internet bi ñi nga xam ne xamuñ dara di wax sunna sunna sunna waaye alxuraan mooy tegtal bi bi gën a wéy te sunu borom lu mu waxoon ñi leen wax lépp lu mu leen wax maa ko wax te alxuraan moo ne yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jaahidu fi sabilillahi lakum tuflihun kon wasila mënta ñàkk waaye moo ko waxoon ni ko mm, yéen ay wullikat ngeen wullikat mooy fexe leen ba liñ leen wulli loo nooy ëllëg yow ma la xam bu ñu ba fay den man ahmadu mi la wax loolu sëñ Tuubaa ma ko wax kon euh, si loolu nag su kon si lañ sukkandiku rafet njort am yaakaar ni barab bii képp ku fi teew suñ borom mën naa fa si aaju saaxiran wa baatin ndax kat la fi sëñ bi bàyyi woon ba léegi dara lu fi dara dara dara lu fi luñ si yokk amu si li ma koy faral di waxee jamono ji riir mu bari na lool wax ji bëri na lool waaye nag sëñ Touba moom lam lam lam dëloon fenn fa dafa mu dël lam fa def mooy tey jii bëri waa na fu wax bëri lool waaye bu sëñ bi ñëwaatoon tey lam leen bawoon bukk la ne ndax sëñ Touba mës ta nekk si caaxaan mënta nekk mës ta nekk si mu fo mës nekk si mu puukare mës ta nekk si dara adduna te fii ba léegi loolu moo fi nekk sëñ Cheikh mii nga xam ne tey moo wuta jotaay bii wér na ma ni lu ko nit a bëgg mën na ko bàyyee te luy pas-pas lu dug taal bi ak mat boo xoolee si moom da nga ko gis te loolu rek mooy li am solo kon yàpp euh, naa ni di dëgg-dëgg ñu bu ñu xusee si waxtaan wi li nga bëgg a xam dëgg-dëgg si jëmu ju teet jooju si Amadou Lamine li ñu xam ne dañu ko am Eh, jërëjëf sëñ Cheikh Mbacke xam naa dañu lay dellowaat laaj bi rek ginnaaw bi nga ñu indilee laytaay ba am solo boobu ci wane ne jëmm ju tedd jooju Serigne Touba Cheikh mat Bamba moo ko wutal aw tur tudde ko Serigne Baara waaye tudde ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gën a jamonoom bëgg nañu nga del si fàttaloon ci lenn ci jaar-jaaram waaye digganteem ak relation yi nga xam ne amoon na ko ak jabatu ku tedd gi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te lu bare bari histoire di ku nettali ci euh, nga del si fàttaloon ci lan moo nekkoon histoire digganteem ak Serigne Fadil ab liggéeyam ci liggéeyu jumaa ji ak xilaafatu Cheikh Ahmad Nil Fadil loolu it bëggoon nga fàttali ñu ko waaw jërëjëf ab liggéeyam moom Cheikh Ahmad Lamine Bara Khourédia ak jëfam boo ko xoolee mooy li ma wax léegi boo ko xoolee da nga doy ne sëkk si symbole bi nga xam ne moo gën a rëy si yoonu mooy mu jumaay Touba histoire du ko fàtte mukk te boo demee si archive national da nga ko fekk turam bokkoon na si si jamono jooja ñi nga xam ni yoonu murid dañ leen doon bàyyi xel ngir pas-pasam ngir euh, li ko sunu borom may tam lépp mu delloo ak sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal la ko tàmmi Cheikh Amadou Moustapha ngay wax ndax wax nañ ni mos naa fekk sëñ Mamadou Moustapha sëñ Mamadou dafa wax ni nañ ko dalal sama biir nekk te bu demee nañ toog si kaw mu ne war ma du jut jànn te boo ko fi bàyyee foo dem man faa dem dañ ko fi bàyyi ngir ngir ma at war ma at sëñ Modou Sow ngir doon gi mu doon sëñ Tuubaa waaye li doon magam nga xam ni kon bu dee si Amadou Fadel moom dara mën ngaa ne xaar ah fan daara benn lañ woon benn gi nag li ko ki mooy sëñ Tuubaa si jëmmi boppam na ñëpp bàyyi xel ni sëñ Tuubaa moo jël si Amadou Fadel jox sëñ Mor Diarra mu doon féeteem sëñ Mor Diarra def li mu war a def si moom waaye itam si biir defar googu Cheikh Amadou moo sëñ Mor Diarra boolewaat sëñ Fall ak sëñ ak Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacké ñu doon ñoon ñoo xam ne dañu ànd si nawle waaye daan ànd bëggante daan ànd si soppante doy na si firnde kër gi ñu nekk euh, son soxna Fatim Booba Jenn mii nga xam ni mooy waaju sëñ Cheikh tedd mii doomi sëñ Bara Jenn la moom Cheikh Issa Jenn la indi fii sëñ Fallu lañ ko joxoon moom moo ko jëlal wëlbatikuwaat joxaat ko Cheikh Amadou Fadal am na wax ni da ko woo jigéen ndax dañu ko seen ak njabootu soxna Fatou ko si kër Sëriñ Tuubaa si fii la ko la ko suñu borom moo tax ma jox la ko. Euh, loolu bi mu amee kon nit yàpp na relation foofu mënut a yem foofu nit koo xam ne si jox ko sab taaw muy soxna Mbène Baba Mbacke mun sëñ Fallu fii la fii fii la tër bi yow ndax sëñ sëñ sëñ Baaba Xurja ko yoroon moo waral soxna Mbène Baba nga wëlbatiku soxna soo xam jox nañ la ko joxaat ko ko wëlbatiku daan fi yebal ay nit loolu relation foofu la mën a yem. seen diggante nag lépp loo xam ne sii moo waral ab ànd si diggante nit koo gis ba ni seen ànd rafet na boo ko xoolee si ñoom ñaar da nga gis. te sëñ fal si jëmmi boppam daal na ni lépp luñ ko mën a wax day wax ni sëñ Baara la si la laaj lan mooy xalaatam moo tax am na wax ju siiw jooju dégg ju am ñu bëri xamuñ histoire ba loolu lu ñuy nettali sax waaye lañ si mën a wax am na bis sëñ Fallou laaj laaj loolu dañu ko ah Mbàkke wóolu naa sama jëwiñ ba doo du ma xooli samay tool de ku ko def mën ngaa boole te doo ko yëg ne ko nag waaye yaa ma yilife waaye nii nga ma yilife ku xam loolu man baara xuma ci ko loolu ay wax la yoo xam ne ci yu bàyyi xel la ànd nañ ànd goo xam ne si daal ñoom ñaar si liggéey bi jumaa ji ndax liggéey bi ànd nañ ko ànd boo xam ne si saa bu sëñ Fallu musaana soxla wala euh, liggéey bi euh, sëñ Baara Xubéja bokk doonoon na si ñi nga xam ne doyoon doyoon nañ ko si te saa bu leen bu baax a baax baax liggéey yi nga xam ne tamit ñoom nag la liggéey si jumaa ji nga xam ne sëñ Fallu da ko daan baye Touba Bako Aliya si mboolem daara yi am yëpp si Amadou Bara Rokhaya bokk na si ñi nga xam ni ñoo daan ànd ak moom liggéey yi daan andi am mbooloom si bàcc si góob si yooyu ngir ngir lu jëm si jumaa ji jël ay ay dongay teg bi fii la leen jëlee sëñ Jib Ndiaye boobu moo jiite woon euh, euh, mbokk dongay teg bi yooyu nga xam ne ñoom dañoo féete si jumaa ji fii que si ñëpp Fataa Mbàkke Fall gi nekk foofu la ñu féete woon nga xam ne euh, Touba li muy yaatu yaatu tey tey ji jii bokk na si si Amadou Lamine Bara ja màggal Touba wax nañ bu saa ñëw kër yi nga xam ni lamp daal na fa leer bokk na kër Sëriñ Bara Xuuja kër Sëriñ Abdou Fata euh, gi nga xam ni foofa ñi daal liggéey jumaa ji foofu lañu nekkoon kër sëñ euh, ak jumaa ji ak kër Sëriñ Abdou Fata muy muy muy muy muy muy xalifa bi même saxaar gi bu mu saana ñëw day day wax ni moom Sëriñ Bara day yëglu ni ba xam agsi na ñun mënu bu agsi bu kenn dël nga xam ne saa bu ñu musaa jógee foofu rek ñëpp dañuy mbooloo mi dañuy wal di jëm foofu mu doonoon liggéey boo xam ne si liggéey na ko si yoonu murit waaye liggéey na ko si jumaay Sëriñ Tuubaa ji moo tax keroog ba nga xamee ni jumaa ji sotti na sëñ Fall dañu ko da ko fa wat ni ko fii sama sama wet rek ba mu sëlmalee ah, si yaa dëgg njëkk lal si jumaay Tuubaa ba mu seen da ko jot ni ko baara rafatal naa ko waaye wax nañ ni ajjuma ji del si ba mu del si rek si la wàcc liggéey ba mu wàcc liggéey tamit sëñ Fall dafal nañ ko denc ba suba si heure bi ñu wax ko mboolem yoonu murid wépp ñëpp daje fa moo wax nañ ko yëkkati ba ñëpp gis ko te def ko def ko ndax moom mooy wax baayam mooy waxi baayam ni ko jumaa ji man liggéey bi man na kon moom foofu la taxawoon si si si si yoonu murit li ma koy faral di waxee jamono ji fii mu toll ñu bëri dama leen wax ni leen ku ko bëgg xam boo ko laajee ak njabootam mënoo koo ñàkk ba ndax mën nañu laa wax loo xam da ngay jàpp ni ko waaye mag ñi xam ne xam nañu histoire te fekke ko te dund ko boo leen laajee dañ la wax kan mooy Cheikh Amadou Lamine Bara Khoudia suñ borom mayoon ko loo xam ne tamit mboolem ji mu bokk suñ Mor Jaara ñëpp kenn ku nekk gërëm nga gërëm goo xam ne xam nga ni moom la waroon sa diggante ak moom lépp def na ko moo tax bëri waa na tey Euh, euh, ëtt sëñ Mor Jaara boo itam te fekk fa aw turandoom amul loolu nag na ko mooy nangu responsabilité waaye xam lan mooy ñebe ak njaboot waaye nangoo jël tamit responsabilité si ñoom ñëpp kon euh, jàpp naa ne bu ñu lay mën a wax dëgg-dëgg si mbiram daal jàmbaar woon joo xam ni mm, waaw bi mu fi jógee si matuk jubaay ji rek muy waa googu la wàcc liggéey bi mu njëkkee bi mu wàccee liggéey sëñ Cheikh Baye Khourédia moo ko njëkk a wut nga xam ne ab taawam Euh, moom itam taxaw taxawaay bu rafet euh, ndax li may faral di wax rek taxaw taxawaay bi doy na sëkk si penc mi ndax booba jamono yàgg na te jamono melut woon nii te nit ñi xamuñu woon lañ mooy wàlluuru suuf wala nit bàyyee la loo xam si war nga ko kon moom itam taxawaay bu rafet la am ba tey njaboot gépp kenn ku nekk si ñoom euh, man fay ñëw di fàttaliku sa sëñ Bara Khourédia moom sëñ Cheikh Bara Khourédia moom ñu koy ñaan suñu am yokk ay layam tax tax suñu si barkeem ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadou leen Bara Khourédia gépp rek Euh, moom sëñ Cheikh Ba moo ko njëkk a bi mu fi jógee sëñ Thierno Mbacke moom sëñ Ba xam topp si ba sëñ Abdoulaye Mbacke Mati ba sëñ Cheikh tedd mii nga xam ni tey moo fi nekk yàlla ñaan suñu borom may ko fa nu gudd ànd ko wépp bon li mu yéene liggéey sëñ lépp ñu ànd ko moom ndax jamono doy na te ke lu ñu wax gone tey sii gone gu ne war ngaa tiit ngir yënguwaayu jamono ngir kilifteef waaye li ma koy faral di waxee ñun fu ñu dem dinañ siggi duñ sëgg ngir am nañ kilifa yoo xam ni mat leer na leen mat na kilifa kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko fan gudd wàll googu ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoom la njaboot gi ñëpp. Eh, jërëjëf sëriñ Serigne Cheikh Mbacke ñu ngi lay jaajëfal baax ci tontu yi ak laaj solo yi nga xam ne tey jagleeloo nañ ko jàmbaar ju tedd ji nga xam ne tey moom lañ doon fàttaliku ak dundam ak liggéeyam mu nekk liggéey boo xam ne liggéey bu mat la Serigne Bara Khourédia bokk ci mag ñi nga xam ne. bi ku tedd ki Cheikh mat Bamba Xaadim Rasul di dem ci tukkib géej gi eh, te tolloon ci wàccaay ci ni ko sëriñ bi nettali léegi nga xam ne keroog bi nga xamee ne mi ngi jaara ji nijaayam sëriñ bu soobe ci la jàmbar ju tedd ji ñuy fàttaliku feeñ jamono te sëriñ Mamour Diarra wax nañ ne bi mu koy wax sëriñ bi fekk na mu teg tànkul ndeyjooram ci fas yu ba yéeg waaye dafa wàcce waat tànkam bi mu dikkee tudd ko ne ko tudd naa ko yonente bi sallallahu def naa ci moom it loo xam ne su màggoon man mii ma yoon yónni ko mu gàntali du ko wàññi dara jëmm joojee nag tey moom la ñuy fàttaliku mu nekk taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la ab liggéey mit ci kër Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci kër Mame Mor Diarra waxtu ne jamono ju ne saa su saa bu ñu dellu suwaatee histoire yoon wi fokk nu fàttaliku Serigne Bara Khourédia ngir liggéey bu réy bi nga xam ne liggéey na ko lislaam tam bokk ci biir jaar-jaari Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba bis bii nga xam ne tey tey moom lañ koy fàttaliku ni ko Serigne Cheikh Mbacké waxee léegi sëriñ Cheikh Tedd Mbacke mi nga xam ne tey moo toog tey jataayu sëriñ Bara Khourédia ci taxawaayam ak yitteem ak yàkkali liggéey bii nga xam ne bi mu ci egsee ci loxaam te lu jiitu mu ñëw ci loxaam ay kilifaam yoroon ko mu àndoon ko ay kilifaam waxtu nekk mu ànd ak ay kilifaam di déglu seen diggal te waxtu nekk it mu nekkoon ab jëfkat loole mu doon jëf na te yàlla mi ngi koy fay tey ci ñi bokk sëñ Bara Khourédia bis bii gis nañu ne bi fi eh, njaboot gi ko mujj gi fi mujj bi ñu fiy jógee fi màggal gi tolloon ak tey fi sëñ Cheikh Tade yóbbuwaat màggal gi ci yaatal ko ci njàngu alxuraan yaatal ko ci xasaayit yaatal ko ci mbokk yi barki démb rek bi ñu ne gannaaw suba la màggal gi conférence bu am solo gisngeen ngeen euh, amal nañ ko fii ci penc mi te sëti Serigne Bara Khourédia yi dañ ko amal mu nekk euh, conférence boo xam ne képp buñ cee moon doy na sëkk ndax mboole mbokk yi ak borom xam-xam yi ñëpp ñëwoon wuyu si ko fii ci penc mi nekk jataay boo xam ne ren mooñ nekk ñaareelu édition bi ko sëti dara def ak léegi Euh, tey jii nag di bis bi nga xam ne moom lañ koy fàttaliku ci kanam tuuti incha allah daan dem ci baas bi amal cérémonie officielle bi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dokkeel ñëpp ñu àndoon ak Xidma euh, TV ak Xidma 28 ak Benno FM Touba ak Lamp Fall ak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 الهمال أبس والسفر